may defar ni ni di gis mooy sama publicité mhm. Mhm. d'abord donc sama sortie bi ci temps élection à Wade cooy di bëri France 24 mhm. yi di ñëw jour boobu seen radio mi ngi fa seen kii bi mi ngi fa laa ci nga ñu ma mën leen Sénégal dal benn problème du am coow bi la rek mais changement de président dina am. ba mom gisoon nga ne. ki fi nekk day dem. day dem waxon nako ko. d'accord wax naa ñu mais eh, Macky Sall

am na nga xam ne wax naa leen tamit li bu am li peut moo am donc mais loolu lañ amoon. chaque année bu ñu def fête bi dañuy xool jour boobu. Mm. amul nelaw 24 heures bi amul nelaw doo nelaw benn minute. nga xool ci biir 24 heures bi. kon léegi kon léegi ci ci présidentielle yi war ngeen a mën a xam. <laughs>

mu dem bay faxastal di rot ci suuf jabar ji leewu ko tegaat ko ci kaw sées bi ñaar ñu bees ci langue politique bi dama leen gis ñoo xam ne musuñ dem élection mais musoon nañ bokk ci gouvernement su njiitu réew mi deful ndànk 2019 dinañ ko yóbbu ardo yóbbu ko deuxième tour te bu boobaa mu ñàkk élection yi man maa waxul loolu gars yi bind ko d'accord mais su bañee loolu lépp am na def lii ak lii ak lii ak lii def na ko ak defu ko kooku intéressant mais wax naa def naa. Mhm. ñu dem ba ren ay journaliste yu ma laaj ma ne ma yow de yaa waxoon léegi lii mais dafa mel ni loolu am na ma laa nu mu demee ñu ne ah gis nañ ne enseignants yi bi ñu amee problème dogaru njiitu réew mi moo tax année blanche amul. Mhm. moo waxtaan ak enseignants yi ñu déroulé waat seen raay. Mhm. jàmm am ndax bu année balance amoon. mun na indi astal ci problème bi. ma ne ko ak ah kooku ba tey yéen a koy analise mais ci gàttal. Mhm. toujours nit ñi def ñu ñu war a déglu. Mhm. li nga xamante ne bu ñu waxee plus souvent day am man du ma wax ah du ma wax hasard parce que doon naa saltige boo xam ne premièrement du ma naan sàngara du ma ci cigare dara feesul sama bët li ma yor gouvernement joxuma ko du ma lu tax maanaam ma. far fii wala fële ndey ci seex laa jaaxaanaay lay tëddee. mais na ñu seetaat doxalinu réew mi seet histoire yi ak yeneen yeneen yi nga xamante ne taxaw na ñu seetaat ko faram ko segg ko. rey bu bari bi nañ ko xool. bari na accident yu bari yi. Ah. nañ ko xool mais boo xoolee actuellement nii réew mi di doxee criminel kese Mhm. ren jiw rendi nañ ko liir sàngam sàcc nañ ko mhm. lafañ sàngam rendi nañ ko puune sàngam def nañ ko nii am na jamono albinos mënatoo ko gis biir Dakar wala ak feneen feneen ñëpp daw ñu ñu ñu ñu yelwaan ñëpp daw nañ mhm. tër tër sa jabar rendi ko tër sa papa am na ko fi rendi am na ko fi rendi magam bu góor am na ko fi rendi jarbaatam am na ko fi taal boppam am na ko fi taal jëkkëram tout récemment. mu doon bir yo xamantene toujours damay wax. mais jinne dafa am juróom-ñaari xeet. dafa am jinne yo xamantene ay chrétien lay am jinne yo xamne ay musulman lay am jinne yo xamne ay juif lay am jinne yo xamne ay païen lay ni nit ñi amé religion. non la jinne yi amé ay xeetu religion. d'accord amna ci jinne yo xamantene tay bu fekkente ne yow ci sa bopp da ngay dangay ngay jël wirdu ka la jox wirdu jox la wirdu nga dajeeg wirdu boo xam ne jinne boobu moo ko moom soo duggee ci domaine am moo lay ko moo lay dominé bu fekkee moo koo xamante ne deret lay dundee munoo alaa kulli alin lim la sas di nga ko def di nga rey nit. mënoo ci dara.